jërëjëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di bëgg fu ngeen mën nekk Sénégal di leen char monde maa ngi Grand Yoff bu xel xam nga day dem ci ndaanaan bu mag bi bu ma nee Grand Yoff sa xel ay ndaanaan yu ji moom la fi yàlla teg doomu Grand Yoff baa ngi nii mobile maa ngi lay bëggee mi ngi foofu ci diwa néegi états ñoom Fourier ñoom T Max ak ñoom caatu xaar yàlla ak champion yooyu yëpp ñoom Issa Dieng waa waa waa waa dirigeant Grand Yoff yi ñoom sama nit waa ñoom góor fit champion bi góor fit njool waalo waalo bañ na ñoom ñëpp ñu ma ñu leen bëgg ah tey ñu ngi grand yof xalil wasaare laamu laa àndal tey waa maa ngi ñëw moo na mi moo frère nag PDC Kandji duñ ko fàtte ko ku baax bi borom 1TDR travaux bâtiment mooy sama sponsor leader loolu ragalu ma ko Sarko dama am sponsor Kandji PDG mooy sama sponsor looy ree Kandji PDG la Kandji kenn du lam-laamee PDG jamais kooku kooku DG la la daw Kandji yow Kandji dañ koy xaar ci suñu ay bis sax daf ciy daf ciy jàpp day jàpp si suñu bis si. kon PDG ñu ngi leen di bëgg Zarko laa teewal tey maa lay nuyu di la bëgg di la siyaare. waaw ñu ngi lay nuyu di kontaan ci sa teewaay di rafetlu aussi sa disponibilité ak sa liggéey. Hmm, di la wax ni yow doo journaliste boo xamante ne dañ lay jox heure ngay ngay nga koy rate di la wax ni fi ñu fekk nii nag xam suñu raq ji ñi koy wax usmaan mooy boroom kii kii kii mooy kii mooy borom borom bitig bi Ousmane mu ngi nii non moom da koy laaj mu wax la fii fan la. Ah, nuyul Ousmane mu wax la ah, fii fan la doo ñaaw. Ousou waaw sama sëriñ la nga def. maa ngi sant alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu wér. waa fii mooy Grand Yoff mooy euh, si jumaa Grand Yoff bi daanaka moo ko ñu gara euh, ko ñu kër ñaari kër du ma dox seen diggante waaw donc. Euh, ginnaaw ba ma sante yàlla di julli séerante bi di sant samay ñaani waajur maa ngi sant ñëpp donc aussi maa ngi sigil ndigaale suñu imaamu koñ bi bu daaru Rahman wax dëgg fa yàlla mu nekkoon imaam di nga xam ne imaam bu baax si ñun la donc vraiment doon defar doon boole ñëpp wax dëgg fa yàlla ñu ngi koy sigil ndigaale di ko sigil njabootam yëpp ak bépp mboolem jullit bi nga xam ne yëg nga ni mel. waaw fii moom pressing la. Euh, pressing ay machine ñoo fi nekk ay machine professionnelle lépp rek ñu ngi ko def si Grand yoof yaa ngi dégg donc prix bi abordable na yaa ngi dégg donc képp ki nga xam ne indi nga sa fóot fii nii dañ la koy fóotal ba mu set dindil la tâche yi paaseel la ko lamal la ko boo bëggee tam aussi ñu livrer la ko ba sa biir kër. wala nga waaw man trois trois cent francs dong laa commencé njëg waaw parce que Grand Yoff lañ nekk banlieue lañ nekk te aussi. am na yeneen pressing yi nekk au stade yi nga xam ne ne ay kilo presque 1000 francs la ñuy def kilo 800 des fois sax dañ ma naan lu tax ngay def boobu prix man la man doomu Grand Yoff laa te Grand Yoff laa juddoo Grand Yoff laa yoroo mënu fi def lu cher. yaa ngi kilo 300 yaa ngi dégg kilo kilo cent francs dong la ma fóotal la sa yére ba mu set yaa ngi dégg livre lu ko ba sa biir kër am naa mboto yi nga xam ne dañ koy dem jëli ba sa biir kër comme coono bi nga xam ne ni danga koy daw nga wàcc liggéey sa yére tilim danga may woo rek. ma yónni xale mu ñëw jëli la sa yére indil la ko ma defaral la ko ba mu baax yóbbaatal la ko si sa kër. may naa la ko garaaw ngir sar ko. merci beaucoup léegi am na leen loo a wax mais loolu dinaa waa amul leen problème incha allah. sax ndax daa am koo jàll léegi muy seen imam bi Serigne Modou Niang xam nañ ko su ma jumul mos na la tëgg yàlla na yàlla na waaw mosul tëgg mais tëgg na champion ne ci làmb yëpp Serigne Modou Niang jàmbaar la woon yàlla na ko yàlla yërëm xarak àjjana musul musul aaye kenn làmbam du tee journaliste musul xuloo musul xaste musul wax lu ñaaw ñi ngi yàlla suñu borom yërëm ko xare ko àjjana man moom am na fu ñu jaar te fu rafet ci lañ jaar ñi ngi koy ñaan yàlla suñu borom mi dara tëw yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana suuf Tuubaa yàlla na oyof ci kawam la koo xam ne mënuñu ko fàtte ndax lu na ko ci làmb 99 la ñëw ci làmb bi na yàlla yërëm xare la àjjana ci suufu ñëwal nag tey tey la tey Sarko mi fi ñëwoon mi fi ñëwoon 16 ans 15 ans fii daan fi Ada Fass Sarko mi fi ñëwoon daan fi mbay guy gi mi ñëwoon daan fi bàyyi ma njoon mais sar ci loo ne. Zarko boobu booy allah bu neexee yàlla daan jën kay rek. lan Zarko boobu bu neexee yàlla mooy ñëwaat daan jën kay rek xam nga ñu ngi toog fii dina diri di ci waxtaan. waaw dem ba jëmmi jamono dinañ toogaat fii di ci waxtaanaat. xam nga waxoon ci mbay guy gi de ba nga ñëwee dara bàyyi woo dara lépp nga. man kenn mooy baar. waaw wax nga ma baar du ma fa dem. du ma fa maa la ko wax loolu du dañ. neex yàlla mu koy daan. mais yan yan moo nekk ci yow ba nga ñëwaat téye làmb ji ak par rapport avant ngay tukki ni nga ni làmb ni nga làmb ni meloon ci yow quoi nga xam ne tey da daanu ëllëg nga daan doon doon fo lan changement bi ne ci yow lan la. waa mais c'est parce que déggoo lu mu la dama doon foowee làmb làmb bëggum ma làmb dafa ma bëggoon maa ko bëgguloon mais fi mu nekk nii dañu xam dañ ko xam ba pare eh, yeewu ci eh, xam lim fi mu ñu mën a yóbbu ak lim ñu mën a may moo tax. non coow lay bëri rek mais ñun ñooy yóbbu drapeau bi wax ji moom lu mu bëri bëri bëri drapeau bi Grand lay jëm si. Hmm. waaw balaa drapeau bi ñëw Grand la xewoon combat bi tension bi woon na coow li bëri woon na sa diggante ak Ada Fass buru bi bëri bëri bëri bëri lan moo waraloon coow loolu. nag naa la xamal leen de eggu moon fii. yow mi wallaahi lazim coow li lu muy bëri bëri bi yëpp dérangé wu moon sax. Ada Fass bi ñu wax naan dama dama lay yanu yooyu bi mu ko doon dégg tiitoo woon. yooyu tiit. dama lay yanu. yooyu mais ay wax la rek da may yéen est que mun nga ko wax la rek man wax dérangé wu ma am na loo xamante ni saay dawul sama yaram. bi nga ñëwee ba ci làmb ji ba dugg ci géew bi noonu noonu noonu. waaw mais xaar arbitre sifflé man moom bu ma duggee si géew moom ba def lu may def yëpp ba pare na may xaar arbitre sifflé arbitre bu sifflé moom saay non dañuy xeex te bu ñu xeexee maa lay gañe par force maa lay gañe kooku amul non amul xeex parce que man maa dóor sama adversaire du fayu te yëpp noonu lay demee man moom dinaa dóor man xam naa adversaire du ñu fayu ndax na nanu mooy daanu nanu. sax da nga koo jëkk ci galaaj moo tax aada deful daal. galaaj galaaj la. Ah, xaw naa ko kii rek téye tuuti noonu rek mais bariwul de. Ah. waay tuuti rek ay téye ndaw yooyu noonu rek ah. <laughs> mais feeñul galaaj mënul ñaax ci làmb làmb dafa ànd ak galaaj si. yow munoo nekk biir stade ay millions de personnes taxaw di la xool nga bugg ne yow doo aar sa bopp doo protéger sa bopp munul nekk boo ko defee yow doo doo doo sori fi nga jëm. te da nga doon su ma ko daanee sax yóbbu ma fenn léegi daan nga ko nag am na fu mu la yóbbu de. non yóbbu ma fenn ba tey parce que bu doon def may yóbbu fenn tey kon Gris Bordeaux laay laay bëreel bu doon yóbbu na ma fenn beneen paa bi mu jéego mënu munoon teg jël jël Gris lay doon wala mu nekk la de non barrage bi sax nee nga doo bëreeg moom. barrage man noonu laa amee barrage. yow kuy sa barrage. Libidor. Nandi Fall. na. Ousmane Ousmane Gandigal. Selembele. barrage Gris Bordeaux nee nga doo bëreeg moom def nga ko xarit. barrage bi Gris defuma ko xarit man li mu li mu wax loolu laa ko nee naa ko Maodo nee naa ko bu bëreeg Libidor bu daanee Libidor man ma jël ko. moo raw Libidor si la non fu muy rawee Libidor ñoom ñaar ñu bokk adversaire Modou moo daan Abdou Diouf. kan moo daan Abdou Diouf moo rëg rëg moo ko daan waaw mi ngi noonu rëg rëg eh, Libidor moo daa raw Libidor ci làmb na. ah yow làmb amatul raw làmb fi mu toll amul raw xam nga kan moo raw. mooy ki ci gën a tekki. làmb moo amul raw gis nga mbëri ñuy wax ay maa raw kii ak maa raw kii kenn kenn. rawul kenn parce que boo rawoon nit yéen ñaar du ngeen bokk li ngeen di fay si si pour am seen licence. dix mille francs la ñun ñëpp di fay kon kenn rawul kenn ñun ñëpp ñoo nekk même catégorie ah, rawel bi rawel bi yëpp li nga koy dégg xamala la mooy kii cachet bii lay fayeeku kii cachet bii lay fayeeku amul leneen raw amu fi koy dégg mu naan maay raw ak maay kii rek tapet la ñemewul bëree mais làmb kenn rawul kenn kan moo fi raw kenn moo fi raw ci làmb ji muy Modou Lo mooy roi des arènes. mais ñi si des ñëpp mun nañ bari suñu biir Modou bu demee ba jël ba jël Ama Baldé di ko may chance kay nga xam ni làmb war na ibbeeku. waaye bëreewul. non exemple laa la jox quoi xam nga bu bu bu kenn bu ñu wéroon day taxaw yaa ngi comprendre kon donc eh, ñun ñëpp war nañ mën a bëri suñu biir Ama Baldé bëriwul bëriwul ak koo xamante ni ba tax na làmb war na ko mën a boore ak Modou bu doon bëree Boy Niang sax tane na moom daan na Balla Gaye bi daan Modou Lo d'accord. Ama Baldé daan Tapha Tine. waaw mais ta. mais yow ñi ngay wax est-ce que kenn bëri na seeg Modou Lo Tapha kon moo ko daan Balla. kenn bëriwu seek Modou kenn. mais Ama dafa confirmé. dafa confirmé moo tax moo tax Modou may ko chance man tamit booy dañoo confirmé moo tax ma may leen chance loolu la rek mais amul ay maa raw kii koo dégg mu naan maa raw diw maa raw diw rek tàppet la ñemewul. Hmm. loolu kese la mais amul leneen lan mooy raw raw boo xamante ni yow bëre woo defoo dara nga raw bëre benn nit daan yow bu doon raw man ma ni daan naa bàyyi ma ñoon du ma bëre jën kayre du ma bëre aada fas mais loolu amatul ci làmb làmb dafa ubbeeku léegi ñëpp mag ñi ñooy wàcc bëri xale yi xale yi bëri seen eh, seen rax yi mu jeex amul leneen. mais da ngaa daan Ada Fass même pas même même pas deful un mois sa combat taxaw ñi doon xaar naan moo guy gi dinañ bëre ñi naan moo kii dina bëre am na fu nga fu la doon xaar mais nga ñëw jël doomu mbër mi xam nga làmb dafa am ay ay aspect da ngay teg ay pion yow da ngay am cible da nga naan kii laa bëgg a bëreel ak kii mais doo basé wu ci ñoom yaa comprendre. bëgg bëreek ñoom taxul du tax da ngay toog di leen xaar ñoom déedéet man ñi ma bëgg bëreel promoteurs yi eh, dem nañ démarché leen ñooñu di fayeeku cachet boo xam ne jaruñu ko. comprendre kan la comme guy gi ci boppam. promoteur bi dëgg làmb ji moom la njëkk seeti. daf lay may revanche moo daanoon. dañoo dañoo mas si niil may mu revanche de. non ah, nga maa si làmb ñett may may revanche. te ak kenn ki moom xam naa ne dootul bëreeg man ndax xam na ni dama mooy mooy Modou Anta dootul bëreeg man. ndax du bëreet ak yow parce que ni dama koy bu buñ bëriwaatee dama koy rey. noo koy reyee. moom xam na loolu. mi ngi Maroc keneen ki ma daan man keneen ki ma daan bàyyi na bëri 50 Cent bëreetul. ak Sa Thiès. Sa ma ciy may revanche ak euh, kii comment dirais-je. 50 euh, Cent bàyyi na. waaw Sa Thiès moo ma ciy may revanche jeex na. Euh, jeex na guy gi ñemewu ma jël. mais fu ngeen ne da ngeen fu ngeen nii la tamu daan la équipement daan bi ma ko daan moo tax suñu làmb man ak moom taxaw man ak moom su dañu bëre mbapat ma daan ko ci biir semaine boobu la ko maa nga tëgg taxaw làmb jooju parce que daan bi ma ko daan moom xalaatu ko woon guy gi ngemboonul àddina ak li ci biir noo ko daane woon daf ma yëkkati ba ci kaw ma yëkkati dama ko bàyyi mu yëkkati mu zongaleem bi mu xoola daan presque yenu na fa quatre séeréer yoo xam ne noonu leen daanee man ma ñëw may ko mu jàpp ma yëkkati ma ba ci kaw sànni bi muy sàndi ma téye ngemb e, baraay laa téye seen kii mu taxoon fii dëgg sama tànk fii sama tànk fii laa ko dëgg ci tànkam ba pare fàq ko mu lal biir bi yëpp kanam bi sax dafa ma ko suuf. loolu tournoi jël boobu moo ko metti woon moo ko metti ba la suñu làmb man ak moom taxaw tournoi du souvenir bi CNG tëggoon loolu archive yooyu mi ngi ci CNG ba léegi. ci ci ci ci ci ci même jour boobu. laa daan kii Edouard Dimlé. Daara ju la jor ndaraan lim lay jox jour boobu lay ñëw ànd ak indi ngemb lu bees tàq jour boobu laa koy daan. musuma koo gis mu daw si làmb de. ci bii nga koy gis. da doon dëggal boppam de. déggoo ma de bu wàccee loxoom day daw. doomu mbër la de. ah Ada waxu ko fii waxuloon nu ma daw du ma arrière fu mu mujjee ah. mais kii doomu mbër mi la. Eh, na nekk maamu mbër bi déggoo ma de man ku mu mën di doon boo ñëwee da ngay daw. papa mu ay victoire si papaam laa yóbbu sama copain mu dóor ko mu daanu. kan la bu ma sonal waaye nga xam ne papa moo bu doo ma dimbali. waaw mi ngi noonu. mais mbër la woon. mais moom dina xam ne man du ma moromam du ak moom. lu nga jël ko kon dinaa dinaa ko dóor bu bëgg a dee daan ko. ci canal laa koy sànni. xanaa na ngaa dof. face à bi dafa taxaw wax ak yow de maanaam ci góobee loo ci góobee du naka. loolu mun te ñàkk loolu c'est forcé. mu cee ñàkk mais yow man ngay jëflanteel man wax ji mun na bëri nii rek ngay wax tax mikoro yi mais fexeel ba ñu tëj ñu rek ba Zarko xoosaat ndel bi ba diwoo soow ba laal suufam bu xonq boobu ba xulli la bëdi di nga waxaat leneen. amoo leen lay ci moom. non dara man amul lu may moytu ci mbër pour te dire vrai waxuma la pour waxu eh, micro wala moom pour mu ragal ma wala dara amul lu may moytu ci góor waxuma la mbër. du bëre du xeex. ku dàq bëre. maa ko doole maa bu doole. fit loolu moom egg sama niveau. bokk yamuñu sax si lenn. kon nag xanaa jën kër amoo sens si laamu. non amu lu mu si am. encaissé ñëw xalangu ñibbi. kon da ngaa bëgg na xaalis ko dugal dafa leer ah deux ans nga toog bëre woo xam nga deux ans et quelque te mbër moom benn at boo toog bëre woo rek yaa ngi perte. c'est ça non deux ans yi mu toog yëpp da yow doon xam waaw ah, moo taxit nag jàpp na moom fexe na na na fexe ba wane yoot gi ma doon yoot na fexe ba wane ko rek ak dëggal boppam. non du daw moom. Eh, saay ngay bëreeg ñeneen yi bokkul ak ngay bëreeg Zarko dama lay wax nga daan Modou Anta. bokkul nga nga bëreeg koo de man ngay waxal de voilà. est-ce loolu du risque Modou bi mu daan Modou Anta daan la tamit facilement la daan Modou Anta de. déggoo ma de yow ñooñu yow. yow man nu ma wax sax haala moƴƴani ɓooye min kaala kewɗo mi mbawa ɗum de mbimi ko min woni bakan sa jaggi mi jagat sa jagani jagat sa arat sa arat mooy yow xana nga dof yow ɗo hool dafa leer loolu yow du du mën ak ñoom sax du mën ak ñoom sax ni mu demee la rek billaay wallaay mais bokkuñu sax niveau mental bu ñuy xeexee man ak ñoom du benn sax. Hmm. ak <laughs> bii de lu bees tax ciy xew. booy billaay walaay. kontaan bu mujj bi. waaw di sant rek ak gërëm di nuyu ñëpp di sant sama yaay di sant sama yaay di gërëm sama maam di ñaanal sama pap fi mu tëdd si alaaxira yàlla na ko suuf eh, sedd ci kawam yàlla na ko yàlla xaare aljana di ñaan ñaanal suñu imaam bi di masaw mbokkam yëpp di ñaanal sëñ Modou Niang di ko jaale. xam nga di jaale aussi suñu imaam bi ah, di ko jaale Grand Yoff yëpp di ko jaale zone 7B de di wax ni zone 7B de Grand Yoff seen doom seen rakk seen xarit am na combat ñu waajal ko ñun ñëpp xam nga di ci ñu kenn képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo zone 7 rek ñu ngi lay tàllal loxo di sàq su yow ñaan. da ma sama sponsor bés bu UNTDR xam nga ko. Kanji production sponsor leader bi. ah suñu sponsor Kanji. Kanji suñu sponsor Kanji. sponsorisé wala man la sponsorisé. man moom mosoo sponsorisé Kanji dañoo yàgg ma ak moom sama conseil la sama sponsor la. Ah. Kandji làmb ji maa la ciy xaar bu baax a baax a baax di ci xaar képp koo xamante ni xam nga da ngay bëggee Zarko ñu kenn yéen ñëpp ñu ngi leen xaar ci làmb ji ngeen ñëw jàpp ci képp koo soo ñoom Yves baraay ñoom Modou Yaama ñoom I euh, drame ñoom Ousmane ñëpp ñoom Lamine bàyyiwuñu kenn ñoom Bouba Diawo ñoom Sadam ñoom euh, Alain ñoom Jimbo ñëpp ñoom Buzz ren di DKR. bës lu ci yoonam. xa ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn. ak lu kan bës sama waay la. ñoom bës bu Lutte TV. ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo si làmb ji ñëw jàpp ci ñu kenn ah, ñoom Bamba Milano ah, ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp si làmb ji sama gaa yëpp. saa Touba di ko sant bu baax a baax ci jàpp mi jàpp ci làmb ji ah, di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn daal képp ko ak waa Gàmbi amin waay képp ak waa Gàmbi ñëpp xoyantaan aussi di ko nuyu au passage di kontaan ci moom bu baax a baax a baax bàyyiwuñu kenn ñëpp képp koo xamante ne ngay teg loxo Zarko rek nit du nit matul xel day fattu ñi ngi ñi ngi woo ñëpp di mas di gërëm ñëpp wasalaam. wàllu biir yi na ci ñëw Ousmane Ousmane ñëwul ma ci wàllu biir yi nga doon wax combat Zarko ak ak ak Ada Fass bi problème biir yi lan la woon. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu di sant bépp mboolem jullit. aussi maa ngi siggil ndigaale sama imaamu koñ bi muy imaamu Daaru Rahman bi vraiment mu nekkoon imaam bu baax si ñun. waaw wàllum ticket yi laa bëgg nga ñëwal ma ci ban problème moo woon ci ticket saru ko ndax dégg naa dina doon ko ay bolog yu bari mayewu ko mayewu ko. salaamaaleykum ginnaaw ba ma sant yàlla di julli si yenente bi di sant sama ñaani waajur maa ngi nuyu bépp mboolem jullit aussi maa ngi jaale suñu imaamu koñ bi muy imaamu Daaru raxmaan bi vraiment mu nekkoon nit ku baax vraiment nit ki nga xam ne vraiment da doon defar di boole vraiment maa ngi koy siggil ndigaale waa njabootam yëpp daal waaw en fait euh, dafa am si ñaari affaire yi ma bëggoon wax muy maanaam si ñun ñi nga xam ne ñooy jeune Grand yof ñëpp xam nañ ni làmb dafa metti te yàlla suñu borom bi nga xam ne ni mooy dogal def na ne ñun Zarko rek lañ am comme champion fii Grand Yoff amuñu keneen kon donc il est temps ñun zone Grand Yoff yi nga xam ne ñun ñoo fi nekk bu ñu bu Zarko amatee combat bu fekkee ñun ñi suñu biir ku nekk nu mu mun nu ñu dajale 5000 xam nga 5000 5000 ñun jeunes yëpp pour ñu jox ko champion yaa ngi dégg aussi tamit waruñu toog ba jouru combat ñu ñëw ba si buntu kër Zarko naan dañuy réclamer billet. loolu man damaa jàpp ni du yoon parce que Zarko ñëpp xam nañ ni waaj combat dafa metti combat bi si gën a tuuti boo koy waaj dina def 5 mois waaw kon donc yow sa mbër boo ko jàppalewul tey boo ko jàppalewul quand même waroo ñëw taxaw ne ko jox ma billet bu ma yóbbu bu ma dugal esat waaw mais bu ko jëndalee pour mën da ko war a mayaat supporter yi non loolu sax d'accord ma ko ku jënd bloc am nga droit jënd sa bloc nga mayee ko yaa ngi dégg am nga droit jënd sa bloc nga mayee ko kenn gis gisuma benn bloc bu ñu jënd man bloc man sax dama jënd ay bloc may ko booy. problème bi lan la. problème bi dafa am ñu amul bëgg am loolu kese la. te ñëpp mënuñoo te ñëpp mënoo leen servir loolu yàlla rek ko mën dajal ñëpp. mais du nit mënu ko loolu la rek man lu mu dee dee rek jënd naa cinq bloc maye ko. kon ak am na ci li ma man mii man mii jël naa ay kaar jox naa Malick mu jël ay kaar yóbbu xale yi. am na xale yu bëri yi nga xam ne aussi jëndal naa leen billet mais loolu moo dut yoon ba minimum 5 mois 6 mois 1 an jeune bu nekk war nga si mën a dajale benn weccit nga dem jënd sa billet bopp. ba pare nga ñëw am tuuti li nga xam ne da koy teg sa loxo champion parce que bëri dafa metti man mii di wax ak yow ancien mbër laa entraînement man mii ancien mbër laa Grand F tournoi yu bëri jël naa ko ku ma xamul fi Grand F xam nga ma. mais xëy na nag yàlla mooy def euh, ku nekk ak yoon bi nga war a topp. mais nag jeunes yi dama leen di ñaan si côté boobu incha allah bu beneen yoone bu combat amatee ku si nekk na nga jaayante sa billet bopp. yaa ngi dégg aussi ñun jeunes yi sax bu ñu mënee dajale ku nekk as tuut nga ñu jox ko champion xam nga loolu day tax sa champion gën a sawar mais ñëw taxal sa bunt kër champion nekkoon na la may billet ak combat bi ñaata temps lañ ko waaj. diggante bi 3000 francs 3000 francs loolu tamit vraiment nekkoon na li nga xam ne vraiment maa ngi ko doon ñaawlu trop trop trop trop trop trop. aussi la deuxième chose dama bëgg a wax si wàllum CNG. mooy wax CNG. lu ma koy wax mooy ñun ñii dëkk Grand Yoff fii yëpp zone 7 dañoo xaw a mere waa CNG si benn côté. waa lu tax ñu mere CNG mooy ñun ko lañu am mooy suñu mbër gis nga zone 7B nu mu ngandee est que xam nga zone 7B mun naa ni moo ëpp si Sénégal maanaam si dakaar si Dakar zone 7 moo fi gën a peuplé. yow suñu mbër def benn problème bu ndaw nga ne nga dagg un million trois cent mille ba pare nga ne danga nga koy un an. double sanction la de. double sanction et puis sama mbër bàyyi Europe ñëpp xam nañu jàmm ju nekk Europe mu bàyyi lépp ñëw fii ba Sénégal pour dekkiluwaat làmb Zarko ñëpp xam nañ ni ba mu ñëwee làmb dafa neexaat parce que ambiance bi muy def si làmb amul benn mbër bi nga xam ne da koy gis mi def boobu ambiance parce que tey moom làmb foo la ko jàppee ñun xam nañ ko man damaa côtoyé Zarko ba min bapat lu ma la wax ni du tey Zarko làmb jàppeewu ko sax affaire xaalis yi sax da koy wax ni ko moom foo bi ak toog bëre bi loolu moo ko si neex yaa ngi dégg kon làmb foo la kon CNG une deux trois nga dagg xaalis waaw garaaw sax xaalis sax boo ko daggee anyway amul problème mais di aj tamit mbër jàmbur ay supporter am toog war a seetaan bëggal seen xol parce que man tey Zarko tey buy bëree sama xol day neex yaa ngi dégg ku si nekk de. moom laa woon ci làmb ji bi may ñëw. ah ci moto ba. moto bi bi nga daanee. moto baa ngi nii. man jaaxal nga <laughs> waaw loolu day firnde rek non stress bu nekk si moom maanaam affaire bi foo la yaa ngi dégg buñ ko jël di ko fi nga xam ne ni yeggu fa Zarko foo rek la jàppee làmp foo foo moo tax tey mu ëlbatiku jël booy bi nu mu tudd sax. du booy de. waa Diène Kairé. champion la de. bu nekkee champion. waa d'accord bu nekkee champion Zarko tey. bu fekkoon tey moom làmb jàppeewu ko foofu du jël booy bi. booy bi du booyu kenn. booy bi compétirul. sama booy la de. du booyu kenn de. aywa ah, ku amara di daan zar du mun nga jaaxal zar ko. kuy amara. laajal ñii kuy amara dinañ la wax amara. mais loolu yaa ngi dégg maanaam tey Zarko tey maanaam modestem ak xeebul kenn yaa ngi dégg modestem ak xeebul kenn tey moo tax mu jël booy bi mais instant yi nii ñun sax côté boobu waa jeune grand bi dañ ko si xaw a mais comme dañoo ne ñun suñu champion foo moo ko si neex làmb jëlewu ko affaire bu garaaw donc dañuy du ñu def lu dul accepté ko nekk si ginnaawam mais tey Zarko tey normalement champion yi ñu nekk si kaw la waroon bëreel Lac de Guiers Gris Bordeaux yaa ngi dégg ñooñu si kaw ñooñu la waroon bëree mais en tout cas daal ñu ngi sant yàlla di gërëm yëpp di gërëm waa Sénégal merci beaucoup. mayel ma ndongo une ma fii mayel ma fii ndongo une minute baax na kii bu Sadou Odu Touss mooy ne ci kanam mooy répété bàkk bi mooy tëgg macha allah yàlla gis nga yàlla may yàlla gis nga bu la may lay bu la xañee rek da may lii maa lay bëgg di la si waaw maa leen di fay bu baax di kontaan si seet si bi ngeen seet si sunu champion bi ñuy lu seen ñëw tamit di nuyu àdduna yëpp. di nuyu sama yaay bu baax sama yaay dafa sonn si man. chaque jour yaa ngi wax loolu. billaay wallaay sama yaay dafa sonn si man te dama ka bëgg jàppale te yaakaaruma ci lenn lu dul aar. yàlla ko jàppale. allahuma amin di nuyu ñëpp nag di nuyu monde làmb di kontaan si ñëpp. sama téléphone bi chaque jour ay numéro yu ma xamul woo ma ci. saa yu Zarko amee làmb ñoom dañ naan maa leen indi stade sama tuus dañuy xaar. mais nee nañ temps yi dañ maa mere parce que li ma leen daan ñamal ci làmb ji dama ko commencé wàññi. waru koo wàññi da war a yokk nag. mais nag làmb di ñëw ci la ñuy indi lépp génnee bagage yëpp bu neexee yàlla. jën kere sax dégg naa sar ko moo ko daan nga di ko dëggal kan moo daan fii jën kere. waaw jën kere Amara daan na ko. Amara Amara sunu benn copain la bu nekk fii. Amara doon foo rek. mag ak raq yëpp la boole daan mbapat ñoom ñaar ñëpp la daan loolu moom fekkee nañ ko quoi. ah bon Kasoor waaw mais loolu waa passé na léegi moom moo moog Zarko bii la. waaw ah, moog Zarko la te incha allahu rabbi day nice Diène Kaïré champion la te en plus li tax sax man ma gën man Diène Kaïré dama koy béggee barki Seydina Mohamed parce que cité marine bu mu dëkk dama fa am ay copains ñoom Samba ñuy yëkkati seen teraanga di ma jàppale. léegi tuxu na ma nga ma nga Kër Ndiaye loo. waaw amul problème dañ koy ñaanal jàmm rek waaw di ko yéene tamit di ko xamal ni champion la Zarko champion la làmb moo leen boole. li ci lu rafet rek yàlla na ko suñu borom mootali et puis que bi yoon xanaa tuus bu bees nga indi. non bi yoon tuus bu bees sàq laay indi parce que day def effet bi dafa war a ñëw day def effet bi dafa war a ñëw waaw parce que doo xool bi moom muuroon loolu quoi waaw incha allah. Ah, solo dañ ko aj un an lañ ko aj. waaw dañuy ñaan yàlla rek waa CNG ñu baal ko di xam ne moom bu nekkee ci làmb day topp coobare boppam ba mu ëpp mais dañ koy ñaanal rek waa CNG dawal ko yërmande baal ko. ko waa CNG Père Bira Maysa gars yi man maa leen di ñaan man nongo bu Zarko dama leen di ñaan ngeen baal suñu champion bi ndax ñun moom lañ am boo leen ko ajee làmb daf ñuy namm ndax ñun Zarko rek moo ñu mën a yëkkati yóbbu ñu esat Zarko bi mu voyagé bi mu tukkee kenn gisuñu si làmb kenn dégguñu si làmb ñun moom rek la ñuy topp dañ leen di ñaan ngeen baal ko waaw. kontaan naa ci waaye maa ngi gën bég ci yéen di kontaan bu baax a baax. jàmbaar ñëpp nag. bu baax jàmbaar nga ñaanal ma bàyyi ma teral sama yaay yàlla na defal nga teral sa waajur ci barke Serigne Touba man sama yaay rek moo tax may sonn barke jàmbaar nga bàyyi di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal kilifa diine ak kilifa aada yi seen jàmm yàgg di leen wax nag man seen doom seen xarit maa leen di dékk sama loxo ñu defalaat ma ay ñaan waaw parce que soxla naa ko torop jërë ngeen jëf xalil noonu la demee nan ko jàppale doomu Grand Yoff la gis nga yàlla suñu borom su mayee lii rek su la xañalee rek da lay may lii ñu ngi waa yëngu ci wàllu aar di tëgg di tuusal Zarko di créer yoo xamante ni ay affaire yu baax la dañ ko jàppale ndax dégg li mu wax ku ko dégg xam ne dafa daw yaram dafa bëgg dimbale waajuram te ndaw bu jógee pour liggéey pour dimbale waajuram naka Sénégal jàppale naka ñi nga xamante ni ñoo ko tane ci wàllum koom jàppale ko mu mën a àgg niveau bu sori mën a dimbale waajuram mën a dimbale bopp ndax moom jàmbaar la koy suivre ndongo la bu Zarko la di kontaan ci yow Khalil wasaare làmb la ànd ak Basirou ak CNG TV du mën a ñàkk ñu ngi kontaan ñëpp di kontaan ci sponsor leader PDC Kandji jàppaleel ma ko ndonga PDC Kandji jàppaleel ma ko su ma ko waxee dina ko def PDC dina dina la jàppale tegal ko loxo PDC yow lu ma la wax nga def ko xam nga Moustapha Kandji doomu Daaru Rahman bi maa ngi lay xaar li sa waay wax dëgg la ñëwal nga jàpp ci jeex na bàyyi naa lool sa loxo noonu la demee PDC jàppaleel ma ko ndaanaan la jàmbaar la te liggéeykat la te yow da nga bëgg nit kuy liggéey te da nga bëgg xale seen boo xam ne dafa nekk si yoon am ambition maa lay bëggee borom 1TDR yàlla sa jàmm yàgg doomu Daar Rahman bi. li ma ciy dolli mooy. Hmm. PDG li may wax yow yaa ko moom. wax ko bu ma neexoon damay dem ci arekaar yi di yalwaan. defoo ko comme ni ko moo Modou waxee mais damaa gëm sama bopp. yaakaaruma ci kenn mais li may dund tamit soxla naa si jàppale. incha allah maa ngi la ciy xaar nag bu baax a baax a baax. bu soobee yàlla loolu lay demee nan la ci xaar. PDC nga jàppale ndaw ñi yaa jàppale ndaw ñi yaa jàppale mag ñi yaa jàppale malade yi yaa jàppale yaa xool fu dara nekkul nga def fa dara yow Kandji production kon kii nii dara mi fi sax mais gën fee def dara mu gën a jóg ci kanam ndax Sénégal dafa dunoo bëgg ndaw ñuy liggéey di kontaan ci bu baax Moustapha Kandji PDC yàlla na sa jàmm yàgg di kontaan ci Babacar Mamadou Lama Babacar Mbaye Guy gi moom borom baax la jàmbaar ma nga sànnaga xale dinaa la fa yóbbu ma solo la ak Baye a xam baax la ñoo xamante ni ay commerçant lan par ay Baye Fall lan Sa Touba le grand marabout gëj naa laa gis namu naa la ñu lay ñaanal jàmm jàmm ak xéwal yàlla na ko yàlla tur ci askar sunu gaal borom fépp ak lépp ak ñëpp di suñu borom yàlla defal ñëpp jàmm jërëjëf Khalil